fête bi moom bésu ganee si àdduna mu Yeesu Krista waa Kër Labe di ko màggal ca na mu waree ay ñaan ay lekk yu neex daanaka bàyyiwuñu dara ci ginnaaw ngir màggal doomu mari bi ren nag lu bari nar cee soppeeku ndaxte séeraay du nen gi dund gi dafa cher lool jamono ji daanaka dara mënoo ko fi jënd. ginaar 8000 lay jax wala mu ëpp ko dafa cher bu poox bi nag waxi noppi. naam nag diis lool la daal di def wante nag lu téye ñu daal di màggal boobule bés. mu ni ko ñàkk célébré dafa dem ba bokk si ñun donte ne sax dund gi jafe na waaye nag dañ koy def. ku ne fête de Noël rek sa xel ak daldi dem ci mbaam xuux bi la yoon nag ci ndab li mu ci feggoog ganaar. musulman yi suñuy mbokk lañ suñuy am di jàmm lañ donc fête bi nga xamante ne tey moom lañu am euh, seen fête la ñoom it donc moo tax lépp lu ñu def dañ koy bokk ak ñoom dañuy jënd ay ginaar ngir ñoom li nga xamante ni tamit dañuy ñëw bokk ci fête bi ak ñun. ci ñaari kër nga xamante ne nag dem nañ doxantu fa lu mën bi nag lii day nekk. ñun cere la ñuy togg dina am ginaar ak yàpp porc ngir ñëpp ñu cee am. Noël daal bokk ci ñeenti feet yu gën a am dayoo ci kër waa Labe ñoom nag ñu def seen kéem kattan ba gane si àdduna Yeesu Kirista ñu daal di koy màggal ca na mu waree. julli ñaan lekk ba suur bokk li ci gën a fës ci sama baat rédaction bi di leen xamal ni. bonne fête bonne année. yàlla may fekke ay déwén